caaf la ñu nekk Abdoulaye Diouf Sarr ne caaf ma ngay xam jamono ji nag askanu Sénégal dañoo war a respecté li nga xam ne mooy mesures barrières yi ministre de la santé nee na Sénégal yi bu ñu wàccoo ak li nga xam ne moom la leen waa kër docteur wax wopp ji léegi mu jóge ci réew mi waaye nag lu mooy loolee rek làmbaay ñaaw yéen a gi ba tey ñu xëy fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr nee na lu vague bi moo gën a garaaw fuufa daat nay wax ne Sénégal dina ñagoo yéen a kaay gi de la Soleil ñu xëy fekk fa di jëraawul nee na woppi coronavirus ak ni mu demee ci réewum Sénégal gars yi waruñoo tiit gars yi dañoo war a béggee gars yi dañoo war a kontaan na moom di jëraawul ci journal bii de la soleil nee na lii nga xamante ni mooy coronavirus daal wërta tiital gars yi ba gars yi di avole ba gars yi di jànnaxe kenn wurul jànnaxe ci woppi coronavirus ak nii mu demee ci réewum Sénégal di jëraawule ñu laaj ko ci lu jëm ci vaccin bii nga xam ne wax nañ ne dafay faj coronavirus nee na amul kenn ci àdduna bi koo xam ne mën na laa wax lu leer ci vaccin bi amul kenn ku la mën a wax efficacité vaccin bi amul kenn koo xam ne mën na laa wax ci àdduna bi sécurité vaccin bi di jëraawul ci yéen gi la soleil waane vaccin boo xam ne kenn mënu laa wax efficacité bi kenn mënu laa wax sécurité bi nan la ko nit mën a jëlee yéen a kaay gi di source a kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ak di xeex lu jëm ci woppi coronavirus seeni mbir ak seeni taxawaay doy na waar ndax ñoom nee nañu dañuy xeex woppi coronavirus di xeex deuxième vague bi waaye li nga xam ne mooy cérémonie familiale yi ma ngi am maanaam ngénte yi ak ceet yi jamono ji ma ngi am ci biir réewum Sénégal maanaam réewum Sénégal ci boppam pays de farceur la yéen a gi di réew mi quotidien njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji dafay sàkku ci assemblée nationale ab loi d'habilitation loi bu bees boo xamante ni maanaam Macky Sall dafay am doole lool su bëggee def état d'urgence wala état de siège daf ko yomb loola maanaam daal Macky Sall du wiiri wiiri yéen kaay gi de la sa ñu koy jànge fane njiitu réew di président Macky Sall jamono ji bëgg nañu yokkal ko doole joo xamante ni kenn du xam àpp ba kañ lay jeex yéen kaay gi ñu koy jànge fane ca daa am na fa élève boo xam ne amee na woppi coronavirus Assane Samb ñu xëy fekk ko ci yéen kaay gi di réew mi quotidien moom nag benn yoon ci loi ne président Macky bëgg na ko sàkku sa assemblée nationale ndax nag Assane Sambo nag am na loo xam ne Macky Sall ci boppam bu ñu ko ko joxe man na see ëppal te nag lenn li deltu ginnaaw la ci lu jëm ci wàllum démocratie danañu dem sax ba muy tuule ba réew mi nag nekk régime monarchie constitutionnelle yi ne kaay gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi ci réew mi dina ko professeur Moussa Baldé nee na campagne agricole exceptionnelle dans un contexte exceptionnel Moussa Baldé la mu xamle nee na ñoom daal am nañu mbégte good fine ci lu jëm ci wàllum commercialisation opération bi njënd ak njaayum gerte gi ndax lu jege ñeenti millions am na ñu ko si ay tonnes ci céréales maanaam dugub mboq ak bës yi nee na tamit lu jege ñaari millions ci ay tonnes gerte daan nañu koy am yéen kaay gi di enquête ñu xëy jàngee fa am na ñenn ci ay doomu réewum Sénégal yoo xam ne jamono ji lancé nañ ab pétition ngir nag franc CFA ñu daal di ko fi jëlee ndax ñoom li ñu jàpp mooy Sénégal moomu gudd boppam ba léegi ci lu jëm ci wàllum koom yéen kaay gi de la Tribune ak Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu am na ñetti xale yoo xam ne dañoo jekkoon jekk ne mes ne menten ci àllub Casamance bi l'armée sénégalaise am na ñaar ñoo xam ne gis na leen seeni néew yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamalaan ñu am na loo xam ne ci réew mi war nañu ko waxtaane war nañu see jël ay matukaay maanaam mooy moo subite ñi nga xam ne dañuy jekk-jekk faatu ci réew mi te kenn xamul lan moo leen faata maanaam bëri na lool nit dafay jàpp ne maa ngi ànd ak wér gi yaramam fekk nag am na ay jafe-jafe yoo xam ne mën na koo faat du ci yëg lenn ndax dañuy jekk-jekk ci réew mi ñu ne nit day ñoo nekkoon jekk-jekk na faatu fekk nañu nit ci néegam mu dee professeur Abdou Kane moom mi nga xam ne moo jiite kuréel gi ji ëmb ñi amee cardiaque ci réew Sénégal nee na lenn rek moo koy saafara maanaam ni nga xam ne moom la ñuy dundee ni ñuy lekkee ñu daal di koy soppar ñi yéen a kaay gi di enquête nee na Aminata Touré mi nga xam ne ay jamono amoon na fi doole loola jamono jii nag maanaam wéet na lool moom Aminata Touré ndax bëri na ñoo xam ne ay jege ñaaleem lañ woon jamono ji na ñu ko te ñi nga xam ne ñooy opposition bi ñu bari dañoo dànd Aminata Touré yéen a kaay gi du nee na teeni gaz yi nga xam ne moo tàkk ci commune bu Notto Gouye Diama ba léegi nii fay ko kenn mënu ko ba léegi ma ngay tàkk yéen a kaay gi